lancer appel rek sénégalais yi rek di wax ni que vraiment que manipulation bi fausse information yi bëri na. Mhm. nit ñi euh, internet bi dañ siy foo mais peut-être xamuñu portée bu mu am bi. mais ñun nañu fexe ba sunu pays bi bu ko kenn déstabiliser. parce que li ñu nekk di liggéey li avancé yu ñu am yi occidentaux yi duñu seetaan africain yi du seetaan ñu def des des bon extraordinaires sur tous les plans bu ñu ko kenn yàqal. bu ñu déggee information nañu teey surtout les jeunes surtout à l'endroit des jeunes mm-hmm. nañu éviter information bu ñu jot mu emporte la ñu leen di manipuler nañ ko bàyyi nañu fexe opportunité du yi président yi président de la république nañu fexe ñu am bénéficier wu parce que fi mu nekk nii on a mis beaucoup de chose en mm-hmm. place pour les jeunes formation yi ñuy def professionnelle yi nga xam ne amul woon nga xam boo demee école enseignement général bu dee mun yàlla daf na munoo avant nga toog sa kër maintenant am nga école seconde chance mhm. am nga ay yeneen bon de formation yi a vingt pour cent la say parents di fay plein de choses yoo xam daf nañ ko donc xale yi nañ saisir opportunité les Prodac mu ngi fii mm-hmm. vraiment ci agriculture bi gis nañu ni que day rapporter lu bëri am na valeur ay day créer emploi li ñu fii am mun nañ ko am mun nañ am am na ñuy nekk Europe sax dañuy ñibbisi di nekk ci agriculture mm-hmm. donc nañu def seen xel naka la ñu def ba tekki éviter manipulation yi éviter violence bi merci beaucoup merci beaucoup